su asma ba su yaasin ba su nana ngeen xam nga paasan nga gis muy ree gentil doux tendre mais bu explosé ah kenn du ko téye ah yàlla moo koy def si a nit ñii wax naa la du ñu tooñ moytul ku dul tooñ ku dul tooñ ko tooñee xam ko wallaay tey man dama gëm mooy lu tax sama problème toujours ginnaaw magnifier tout ça police bi ndeysaan yàlla leen yàlla dimbali mhm. problème dañu sonn sonn nañu parce ñoom lii mooy seen liggéey ils sont obligés de de gérer. non seulement sonn nañu mais ils ne comprennent pas le pourquoi sax ils sont là-bas. ok waaw léegi ñi nga xamante ni ñooy causer lii kan moo def ba licence yi yéex kan moo war a joxe licence yi. Mhm. lu tax joxewu ko à temps lu tax mu traîner kooku mooy fautif bi. Mhm. kooku fan la bokk. il faut aller demander poser la question au ministère de la pêche. qui se défendra toujours. Mhm. comme toujours. donc asma nañ ko régler bàyyi ñuy def. Oh. xam naa ni nguur gi moom ah Yacine dina si gën a bàyyi. ba oui on va dire que cela traîne depuis le temps des socialistes. effectivement waaye socialiste moom bu ko fi doon waxati. Hmm? Macky Sall ak équipe am yal na yàlla dooleel leen. kattanal leen dimbali leen. Hmm, roof leen ak baax gu tar. bu ñuy gérer société sénégalaise ba mu jaar yoon. jamono bii nag bu ñu kenn waxati lay lay régime ñëpp ñi defoon def nañu ñi ñëwoon ne jox leen ñu ñu lijjanti jox nañ leen affaire yi pëccëxoo il faut qu'il redresse et urgence alors lan la ñuy mën a wax tamit ci eh, garabu soj yi nga xamante ni eh, c'est un danger bu mën indi AVC ci doomu aadama tubaab bi dañoo ko waxal seen bopp les agences françaises la ñoom ñoo xam le ne euh, actifet de yenn médicaments yi ñu tàmm jël ñun xam dañu tàmm jël ay actifet ay fermecet mhm. yooyu mhm. naa benn affaire ci information bi ni muy ñëwee gars yi heure bu ñu bëggee éliminer médicament wala bëgg a changer médicament wala bëgg a changer la la posture appréciation bi nit ñi di am ci benn produit dañuy dañuy gaafal produit boobu maanaam tey dañuy toll benn échance boo xamante ni dañ boo produit bi na dund mi at ñoom en leur wala en notre en nag Sénégal kii wax na ko fi mi les faux médicaments destinés benn affaire dafa am wax bi nga xamante ni kii di euh, Emmanuel Macron junjoon na ko si ay bi muy door ñëw que africain neuf doom le développement de l' Afrique par sa force démographique loolu loolu c'est une forme de saaga ci discours boobu il faut dégg lan mooy l'Afrique qui aujourd'hui tend vers le milliard cinq cent millions de personnes puissance démographique la comme la Chine l'est te loolu am nañu mu arrangé wul wax bi dégg mm-hmm. ci biir loolu qu'est-ce qu'on fait on met la grande thèse, de l'organisationnel du complot fi ñoom dañ naan la thèse du complot l'organisationnel mooy structurer poser les condition parce que business bi xaalis bi tey nii dañuy créer guerre fenn pour mën a jaay armes yi. tout dañuy créer coow pour mën a indi essayer armes yu bees. comme quand on parle du coronavirus. yàlla yàlla fay exactement. xam na fu ñuy toll tey jii nii la Chine la Chine kii est première puissance économique mondiale tey yàq nañ économie mhm. ci benn fànn bu extraordinaire mhm, mhm, ñenn ñi sax seen xel a ngi ñaaw ñuy tudd yenn réew ñu ne leen déet bu leen tudd kenn kenn mënu tudd kenn mais tubaab xarañ na de mais dafa am quelque part fu mu xaw sew foo xamante ni moom mu xool toujours nan lay toogee ci kaw nan lay desee ci kaw boo gisee ne asma mi ngi teg ay plan mu ngi progressé mu ngi kii day fexe jaxase asma ak ak xeer jaxase ko naa indi condition wu mhm. affaire bi pëccëxoo seen biir mu taxaw na le ne bu paree nag xool romb asma mille à l'heure divisé pour mieux régner exactement ni mooy xewee ci sunu noonu lay xewee ci puissance yi donc faire de sorte que africain yeeg ñi nga xamante ne leen di sonal ñu les pays émergents la nga xamante ni ñoom Inde les asiatiques yu mag yi ñooñu dañuy fexe toujours boo boo leen seetloo information bi toujours on donne une mauvaise image de ces pays là on dit la justice par exemple euh, l'affaire Gon mhm. waa ji Liban ne Nissan ñoo koy jéem a sacrifier mhm. daal di ne justice japonaise du justice bu baax image yooyu mhm. information boobu toujours les médias occidentaux di jox pour tout il ñooñu ñoom nag ñoom seen justice moo parfaite moo baax seeni médicament moo baax seen lépp tey man li ma comprendre na ko nit ñi bàyyi xel mën na bañ a nekk loolu mooy egg nañu benn durée de vie de ces produits là il faut les arrêter point barre du leneen. parce que non non juste pour euh, je pense que dañoo war a dellu ci maam yi euh, ah parce que socc egg na fi ah. te fekk activité amul woon itaakol woon dara amul woon te pourtant dañ ko daan soigner. à notre façon. Hmm. tey ci mag ko dama so da koy faj par hmm. exemple gis nga tey ma madame Koundoul je pense hmm. gis nga tey nañu was bu baax macha allah délicieux <laughs> donc yëpp da koy da koy faj bu bu mag yi bu njëkk ba boo feebaraan da la dema nga jëri ji xeen bi wala jëri ji euh, café limon nga boole ko boo ko defee nii dina la faj hmm. te effectivement da lay faj man euh, Tunkara bi toujours doon naa wax ak moom mu soj soj bu metti na ko mais doo naan garab mu ne garab mooy sama dernier recours mooy dañ dafa war a parce que nga euh, suñu yaram dafa am loo xam ne dafa am système de défense ñun dañoo war a bàyyi système de défense boobu ah, dëgg la danga ko war a booster mais mu mu mu <laughs> ah, après da nga may fay <laughs> que da ko wax a booster mais da ko wax a bàyyi aussi mu def liggéeyam. Mm-hmm. mais bu dee da nga tëdd tuuti rek jël garab lu koy andi après yenn tolof tolof yi. des fois tu n'as pas besoin de médicament. Mm-hmm. bàyyi sa yaram li nga xam ne yàlla def na ko ci mu jéem a gérer il faut ñu wàññi. Mm-hmm. garab yi aussi pour te rejoindre Nana comme li nga wax. pharmacie gars yi dañ ko xaw def mode tuuti. et aussi faut faut rappeler euh, euh, lii tubaab bi pare woon na ko barki démb daaw. jël xeetu garab yooyu noonu singili leen. bu ah, créer dépendance boobu noonu. voilà ci médicament yi ci boo leen fàttali ko il y a deux ans en arrière sirop xale yi ak ci fête ba tey ah. dañ ko singili woon. fii avant Nivaquine. avant ñu koy arrêté. Mm-hmm. te li li ci gën li ñuy li ñuy def ay garab yi boo xoolee fii li ñuy def rek dañuy dem jël ñëw la preuve mooy euh, di nga yi ñuy xolli noonu orange yi ñuy xolli di ko jaay bu ñu paree def ci saaku dem jaay ji ko mm-hmm. après ça sert pour defar ay médicaments yooyu mm-hmm. noonu yëpp donc li fa lay jóge fii lay jógee euh, li muy wax ni mm-hmm. am na émission bu mag bu am kër gi bu bu Sénégal yëpp war di seetaan bu Mansour Diop bi. docteur Samba non Mansour Diop bi muy def naataange bi muy def avec les ñiy wax ci ci fruit yeeg ci. bay geeg jur gi. Mm. loolu. Sénégal yëpp. Mm-hmm. sax dañu war di ko xool. bañ ko rete na ko ñëpp di xool. tout est là mm-hmm. man Mansour bi ma waxee ci papa yi wax ma ci mais terrible. effectivement nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. mat naa bàyyi xel insuffisance yëpp. ce sont ces médicaments tout est à décès tubaab bu ñëwee ne la non lii dañoo juumoon lii ay naxaate la lépp xam nañ ko. mais voilà justement faut préciser que li ñuy wax ni du pour nit ñi bañ a dem pharmacie. Mm-hmm. bañ a dem mm-hmm. jëndi garab bañ a dem mm-hmm. faju il faut que ñu dem faju mais ñu bàyyi xel bu baax a baax ni euh, ça doit être le dernier recours justement. c'est pertinent Asma de de rappeler ça. Euh, on discrédite personne. par contre l'urgence est que nañu fàttali suñuy jamono maam. tubaab bi mu ñëwee si ñun dafa fekk sunu papa yeeg sunu maam yi am kattan. dëgg la esclavage tubaab dañ ñëw gis africain yi ñu am kattan ñu nax yenn maam yi jox leen ay jox leen ay ay ay pistolet. seete ay yu kenn xamul sunu maam yi gëm loolu. di joxe seen yeneen jaboot yi parce que bu ñu lànk amaan tubaab bi mu ñëwee encore gis ni suñu maam yi am nañu kàttan li mu njëkk a def pour que business am di dox garabam yi di dox dafa créer les conditions yuy causé suba insuffisance rénale suba diabète c'est le riz et l'arachide qui nous a ñu di la jaajëfal bu baax a baax Pa Assane ñu di la xaaraat rek suba ci li nga xamante ni mooy euh, yeneen actualité yu yu yu gën a fës yu gën a yu gëna a on le dit alors donc euh, ma di la jaajëfal bu baax a baax euh, ci noonu nag li ñuy daal di euh, jublu rek dem ci li nga xamante ni mooy suñu rubrique société ñu fas yéene fa waxtaane tey li nga xamante ni mooy fay ci biir néegu sëy yi ah,